jërë ngeen jëf mbokki Bawal Info TV mbokk yi maa ngi leen di nuyu mbokk yi nag xam ngeen ne démb siège APR la fa xew yéen ñëpp gis ngeen ko ci image yi am na ñoo xam ne gis nañ ko ci euh, vidéo yi euh, waa APR ñoo amaloon ab euh, ndaje ci seen siège waaye gis nañu ne jàppante moo fa am nee nañu sax ay pro Abdoulaye Diouf Sarr lañ ak ay pro Amadou Ba xam ne ndaje ma dafa mujj daal di pëccëxoo ci jamono joo xam ne tey euh, ñoo ngi laam-laamee kan la Benno Bokk Yaakaar di samp comme candidat ngir mu mën a gagné élection présidentielle 2024 euh, ñoo ngi ci ligne bi ak René Pierre euh, Yahoume nga xam ne partie boobu la bokk René Pierre ñoo ngi lay nuyu. waaw Abdou Khadre maa lay nuyu di la fay di la ziar si bés bi si bés bu sell bi nga xam ne mooy année musulmane defe naa mooy 1445. René René Pierre yow nga bokk ci APR. Euh, li xew démb ci siège APR ban jàngat nga si ak ban gis-gis. waaw lu xew démb dama yaakaar démb lu xew rek mooy que il est temps aussi président de la république moom mi xam ne mooy yor bopp alliance bu yor bopp benn bokk yaakaar dafa war a la fin de la récréation parce que tey su nekk si parti tamit ku nekk day indi nitam ne mooy leaderam lu may faral di wax sàcc na ne yomb na topp wante foo ko tëgg mooy jafe tey il faut ni xam ne ça va raison garder aux militants ni xam ne que Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr c'est des camarades parti ñoom tôt ou tard ils sont appelés à travailler ensemble tant qu'ils sont en vie tey lu am solo rek mooy war ñuy xoolaat ñu jéem a dépassionner le débat ne xam ne ñun aujourd'hui on va aller vers des élections de destin élections yi yaakaar naa day doon élections yi musul am si Sénégal parce que affaire de génération la affaire de concept la et affaire entre lu ma souvent dafa am nu ñu wooyee mooy le bien et le mal donc ñun tey lu xew dëmb dam koy ñaawlu parce que ay maire ay xale laa gis ñu doon di daw parce que ay pompe à gaz amoon na fa gis naa fa démb tamit sax ay paaka yoo xam ne ay paaka mburu mburu la ma gis fa ay jaase gis fa lu nekk yaakaar naa loolu du comportement wu militant du comportement surtout bu nekk un parti au pouvoir parce que parti au pouvoir dafa nekk un laboratoire d' analyse et d' idée mais malheureusement yow Abdou Khadre xam na ma bu baax yàgg na ma invité Rewmi FM a Bawol may wax si ay kàddu di ñaawlu dina ne parti bi dafa am nu a taxawee tey soo demee gar bo maraîcher am na car am na oto bii dem bii dem Saint-Louis am na oto bii dem bii dem euh, Louga am na bii dem euh, Fouta mais tey soo ñëwee suñuy parti pëccoxoo moo fa am kenn xamul kuy def kenn kenn xamul dara lii day wane tamit président Macky Sall moom lu mu defoon ba tey ba mbir bi fii yaakaar naa lu baax la parce que su teeloon wax tamit du nekk candidat wala candidat la yaakaar naa ñun tey ñooy rente suñuy biir. d'accord tey Sénégalais yaa ngi seetaan. ah mais René gis nañ ne euh, coow li est-ce que tey jàppoo ne muy Abdoulaye Diouf Sarr muy Amadou Ba kuñ ci tànn tey ku si bennoo tànn tey mën na kenn ki mën na mën na xeex moroomam est-ce que sentir loolu ci département de Dakar. non gisuma suñu tànnee Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr day xeex suñu tànnee Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Ba day xeex gis gëmuma loolu loolu. parce que ñoom au niveau du secteur national ba ñu demee toog président laajte kan moo doon candidat yaakaar naa kenn waxul mais tamit Donc, quand on est dans un parti, nous, quand même, parti, on l'a structuré de manière transversale. Chacun a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Mais Abdoulaye Diouf moom. Abdoulaye Diouf Sarr mënu ne candidat la loolu président après mooy xool kan mooy candidat bi. yaa yaakaar naa dafa bëgg a nekk candidat. mu ne waaw nee na na candidat man loolu dama koy nangu loolu parce que tamit sëñ bi man nekk ma si la dictature de la pensée unique. loolu c'est fini depuis Staline en 1953 te Abdoulaye Diouf Sarr il a le droit il am na légitimité boo xam ne si parti bi mu ne nekk candidat la mais man lu may wax rek man en tant que René Pierre doon alliance pour la République ma nekk militant depuis l'Angleterre doon mandataire des élections en 2012 ñëw sant fii le mouvement pour la défense de la République doon responsable APR e niveau Dakar Plateau nekk tamit conseil municipal man je suis à l'écoute du président de la que tey su ñu demee si may def mais yow day am te on l'a vu dans ce pays là amoon na ay tendance bu mu gën a métti ay jamono parti socialiste entre ñoom euh, Mbeg Jacques Diop ak Koura tey l'histoire ani ñoom Mbeg Jacques Diop ak Koura Fall ñoom ñaar ñëpp génn àdduna yàlla ni yàlla yóbbu àddina yu gën a kawe loolu day wane que tey malgré que no nos divergences politiques on doit s'aimer on doit avoir de l'empathie on doit penser sénégalais respirer sénégalais ni xam ne réew bi ñoo ko bokk fii réew Sëñ Tuubaa la réew El Hadj Malick réew El Hadj Oumar Fouta réew Kànnaa Thiandoum la d'accord René Pierre mbokk yéen nga ci Baol Info TV léegi René Pierre lan nga jàpp ne moo waral problème bi démb am ci siège APR bi non problème bi lu tax mu am dafa am lu ñuy wooyee entre la dialectique de la raison et de l'appétit te am na ñoo xam ne ñu bëgg doon candidat seen militants yi ku nekk day yaakaar kii moo doon candidat mais soo ñëwee ba si loolu je pense que la raison doit guider doit guider tout le monde mais malheureusement le bon sens est la chose la mieux partagée mais day am si ay dégré de fonctionnement tey lu am nii yëpp lan la c'est-à-dire que parti boo xam ne war nañu toog def ay séminaire les gens pensent que ñu war a ay primaire primaire bi day xaw a trop tard pour ñu def ko mais war nañu mun toog mais man lu may ñaawle suñu parti mooy à chaque fois qu'on convoque les gens on vient ñuy wax ne lii moo am ab dem seen yoon parti ñu ko waxtaanee toog si ay kuréel waxtaan ñii waxtaan ñii tënk ku nekk indi sa résolution ni xool li ñu koy defee mais ñoom seen biir ñoom amuñu problème de ñoom ñu ngi waxtaan seen biir da ngay gis Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Ba ak ñeneen ñëpp ñu ngi waxtaan seen biir Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye mais militants seen bopp ñoo am problème man damay ne militant jeunes yi leaders yi ñu topp noonu ëpp leen xam-xam yàlla moo leen teg foofu ils sont pas plus intelligents que vous ils sont pas plus intelligents que nous ñun tey ku nekk war na mun am béy waaram loolu si Abdou Lahad Mbacké waxoon mu ne nit ku ñàkk njëriñ amul ba su njëriñ xam ñëwee nga xam ne kii moo am njëriñ man lu may wax rek j'appelle au bon sens de nos camarades ni xam ne tey. mais li xew démb est-ce que dina neex président Macky Sall. mais li xew démb président mu la gën xam parti bi <laughs> sëñ bi président Macky Sall li xew démb nag dina ko neex président xam na parti bi président su demee ba toog mu ne lu ni oui nii non ba toll fii yaakaar na lii moom du question lu xëy neex mais da koy jël avec beaucoup de philosophie et l'histoire day président raison parce que wax na ay jamono président moo ko wax ci laminam mu ne il y a des gens qui sont tellement fous qui veulent court ou court devenir président de la République loolu il s'adressait pas à l'opposition il s'adressait à ses propres ministres qui sont des fois parfois assis avec lui en conseil des ministres et je pense que le mot trottoir ne doit pas s'appliquer à l'appel le président a fait des choses exceptionnelles ne l'a fait dans ce pays on doit l'accompagner à terminer ses et ku mu tànn yaakaar naa moom ñu war a tànn yaa xëy parce que président Macky tamit war nañu ko on l'a vu, il est parti au, il parti au Rwanda. Récemment, il a, il été en Ukraine. Et il, quand il part, quand il part l'étranger, il met la, il hisse le drapeau du Sénégal très haut. Loolu c'est de la géopolitique. Tey dem na Rwanda ne gis ko muy yaru yore benn genre brique di woon Paul Kagame te Paul Kagame ku nekk gis na ko si Afrique xarañ na si wàllu économique fu Macky Sall président Macky Sall si dëkk yooyu fu mu dem gars yi teeru ko yaakaar ñun Sénégalais yi di ko tuddee ay avenue un partout en Afrique yaakaar ñun tey président Sénégal président Macky Sall war ni gën a gore dañ ko war a jàppale ah, nekk président René tey René tey est que René euh, yéen a ngi si Info TV René ndax jàpp nga ne tey bu Macky tànnoon Amadou ndax jàpp nga ne Abdoulaye Diouf Sarr dina d'accord ak tamit ndax jàpp nga ne bu tànnoon Abdoulaye Diouf Sarr Amadou dina ci d'accord wala bu tànnoon Abdoulaye Daouda Diallo jàpp nga ne ñaar ñi danañ si d'accord wala bu tànnoon Boun Abdallah Dionne jàpp nga ne ñaar ñi danañ ci ànd man yaakaar président képp ku kuy Ablaye Diouf Sarr Amadou Ba kuy Ablaye Boundione Ablaye Ablaye Daouda ñoom ñëpp ku nekk day d' accord man gëm naa loolu. yi peut être ñoo dul parce que normal tey dafa mel ni sa kër ku nekk day bëgg a bàyyam doon doon imam si nootu jàkk bi mais tamit su ñëwee tamit nit yi ñooy xam lii war na mu nekk war a mënu nekk président nu muy tànnee nit moom moo ko xam te ah. man daal jox naa ko sama kàddu te yaakaar naa tamit képp ku nekk si alliance de ku nekk benn bokk yaakaar mais parti alliés yi ñooy parti alliés yi ñooy gën am ñooy ñoom ñoom ñooy gën a gore mais ñoom ba léegi déggoo si ñoom ni ne ñoom ñu bëgg a doon candidat ku mel ni Moustapha Niass joxe aval ku mel ni Aminata Mbengue joxe na aval mais ñun tamit APR ñun tamit saa waay il faut ñu am discipline de parti tamit c'est vrai la l'APR n'a pas atteint sa maturation en trois ans on na créé un parti on a accédé au pouvoir maturation bi day xaw a métti C'est comme ça qu'on a eu à diriger avec d'autres partis, avec d'autres alliances. On doit savoir que ñun rek aucun de nous ne peut seul sans l'autre, qu'on doit resserrer les rangs. mais violence bi nag bii moom si yéen lañ ko gis violence bi si yéen waa. yéen waa affaire sëñ bi violence violence fii la am mais tamit tamit yow tamit beneen camp bi moo ëpp violence violence. Mm-hmm. yow yaa ma gën xam loolu yow yéen yéen ñi journaliste tey mu leen wax dara soo leen waxee dara si par rapport ak beneen camp saaga leen dox leen leen neex. tey d'accord naa tey lii dey am si politique day am mun c'est-à-dire que l'histoire politique sénégalaise soo soo suuf a toujours été violente mais n'empêche il faut que ñu savoir raison garder. mais seen chaise seen chaise bu ñu pak gisee ay paaka grenade lacrymogène ay jaas yi comme ni nga ko waxee sànq loolu dafa nekk lu doy waar ci parti au pouvoir. mais xam loolu loolu dafa nag loolu c'est la masse soo ñu suñu bëggee canaliser loolu ça dafa am nu ñuy defee moo tax man la parti politique dafa am nu ñu koy dafa am nu ñu koy tënkee war nañ def ay séance de travail war nañ def tamit ay séminaire def ay formation te si bëggee def dara assemblée générale boobu c'était pas le lieu de le faire au siège du parti parce que président nee na ku nekk mu dégg man nu ma gisee d'après sama entendement lan la woon assemblée générale boobu c'était pour dire à tout le monde unité am na entre responsable mais malheureusement ça n'a pas été préparé à la base il fallait le faire dans les communes dire aux gens eh soo leen demee li ah li comportement ne war am mais ku nekk day ñëw ak comportement boo xam ne war na mu doon candidat quand le président tranche des fois ñun tamit des fois dañuy am lu ñuy naqari mais président il a un pouvoir discrétionnaire mooy def lu ko ne lu ko neex si parti bi ne kii la tànn ñun des fois sax du ñu ànd si yenn di yi mais on est obligé de soumettre aux décisions venant du président de parce que c'est notre frère c'est notre camarade et c'est lui moo xeex indi parti bi indi indi ko fii avec son courage politique sa technicité donc aujourd'hui ñun je pense que on doit l'accompagner man foo laa waxee à nos camarades que ce soit Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Ali Ngouille Ndiaye Boun Abdallah Dionne ku président tànn ni xam ne moom la man René personnellement amul benn candidat mon candidat c'est le président Macky Sall parce que tamit nit day wax lu neex tamit man tey nit ku nekk ku la jàppale waaw man président moom a jàppale il a toujours été mon interlocuteur mon interlocuteur euh, gërëm.